merci beaucoup merci à l'écran l'écran mi ñuy gunge saa su nekk ci euh, matinal bi di leen may seen jàngat ñu egsi euh, ci loolu dalal Aïssatou Diop Fall Aïssatou maa ngi lay nuyu di la maa ngi lay fay bu baax a baax a baax sama rakk préféré bi euh, mais Fatou Dieng anuma entre parenthèse. Fatou dafa dem congé yow tamit day noppal. ah ku liggéey tuuti at kay faw nga noppaloo ko. mais Fatou congé yi bariwul. bariwul mi ngi door a dem li non Fatou laaj na jàngat naa Fatou. Fatou ngi door a dem Fatou ñu ngi door a dem moom Fatou ne ñu ngi door a dem dañuy noppaloo ko ba xam naa. Fatou Fatou waat door a ñëwaat. Fatou Fatou Kaama foog dégg la euh, la cas de Fati c'est bizarre hein dafa laaj jàngat c'est c'est important le cas de Fati. Ah, léegi bu ñu bu ñu paree matinal bi ñu jàngat ko ci table bi fële n'est-ce ñu jàngat ko ci. mais oh, te hors la te man ah, ah, man man man fii laa déedéet déedéet bu ñu paree ñu débrief eh. ko. même tamit yow xam naa bu Fati ñibbisee nga yow nga dem <laughs> moom Fati. yàlla bu ma xamal. <laughs> micro bi moom Fati micro bi daal man micro bi. Aïssatou mi ngi may jiiñ di jiiñ Fati. yàlla yàlla baax na mais lan laa jiiñ xoolal lii euh, Marcel. àtte bi lan laa jiiñ cinq minutes dem na. mais lan laa jiiñ man. Apulaay nee na cinq minutes dem na. Marcel yaay ñoo bokk maa mbaay laay waaye Apulaay yow kii lan laa leen jiiñ man dama ne la cas de Fati kame ñu taxaw ci taxaw seetlu yàlla yàlla baax na ay faati yëfam fa fa da ngay jékki-jékki gis mu ne pëchet bind la xoolal yónnee la benn cœur bu rose wala benn cœur bu bleu <laughs> mais yow it bu faatu ñu bisee yow di nga dem. Eh, yàlla baax na je dis ça je dis ma dem waaye ma demee yow tamit nga dem bu soobee yàlla. amiin yaa rabbi xam nga man nag sama sama différence ak yéen mooy dem rek laa bëgg man. <laughs> man dem dong laa bëgg sama dem man du yomb sama dem man du yomb sama dem man yéen xam nga yéen yéen naturel ngeen presque yow daal inshallah il faut ñu piquer ma fii roof ma ci ne di nga gisaat bu soobee yàlla mbay affaire bu ko patam patamee ne accéléré ko mu jàll dem déedéet du noonu c'est pas comme eh ça je ci temps ni xool leen bu baax regardez bien Fati est-ce que ça va est-ce que tout va bien ça. ay c'est euh, important. Fatou est très en forme. Aïssa Fatou ñibbisee rek ngeen gis. automatiquement euh, euh. xoolal Fatou bi ñibbisee automatiquement naata dem. <laughs> Ah, ah, noonu lañ <laughs> yàlla baax na yàlla baax na ay sa. Fatou jël goro loolu xoola xoola. Fatou bu ñëwee. <laughs> Ah, ah bon dugalal nañu benn image gis nga ko muy président Macky Sall voilà ak doxantu bi mu doon def. Apulaay ko ku ku euh, euh, moom ma ne dañoo xarañ suñu yi. noonu lii mooy lii mooy génn ci Fatou xam naa Fatou ne SMS doon def Aïssatou ci loolu nga bëgg a taxaw mais du moom dong ndax actualité bi moom la ak tamit Aminata Touré. Euh, proposition de loi bi mu am fan yi waaye laataa ñuy egsi ci jàngat boobu pan euh, ci ñaari simili rek xaj na ah, da ngay taxaw ci poste ak dafa xew euh, parce que boobu brève la mhm. damay damay brève ba xam nga poste yàgg nañ ko wax fi Malick Thiandoum mhm. manaata yàgg nañu jooy fii gestion poste mhm. Bibi Baldé mii Macky Sall imposé ñu force ko teg ko fii dégg nga euh, euh, euh, dóorul fayiwul ah, puusul paasul àttewul xeex mu mel ne xam nga président Macky Sall gis nga yi muy def nii yëpp ñun ñun soxlawuñu lii xam nga lu ñu soxla mooy fii képp koo xam ne dañ la tuumaal épinglé la ci dara nga puus koo xam ne ni yaa ngi fi naan démb poste travailleur man mi nga xam ne dem maa ngi woon ville dem ku dem ku ku nga dugg Sandaga. Mhm. ku nga duggu ville mais c'était tout un problème. Mhm. parce que travailleurs yi ñu ngi génn di ñaxtu. jaaxle nañu force force de l'ordre di génn. Euh, travailleurs yi jaaxle nañu les clients yi jaaxle ñi nga xam ne seen xaalis fa la ne jommi nañu. Euh, police était obligée mu génn euh, lijjanti situation bi. Euh, te loolu tout ça à quelques encablures du palais présidentiel euh, Bibi Baldé yoonam nekk si il toujours dans dans man j'espère que conseil des ministres bu tey bii wax dëgg yàlla Macky Sall dana soulager sénégale yi. Mm. ba ma xal ñu Bibi Baldé mais mu delluwaat di jaay ay soow ak ay meew ak yooyu nañu wax dëgg tamit parce que mënoo fi nekk jël benn nit teg ko fi muy lekk ay milliards toog di poñe ay milliards. Euh, poste bi dégg naa sàng ñu naan xaw ma am na fenn fu mu ko lii vite may ñëw mm-hmm. xëy na dañuy dañuy tëggaat pasoog yooyu tëggaat pasoog li jëntoo gaar ñu wax naa ay si kii séré beneen paa bi demoon xaw lan si paa bi nekk Thiès mm. euh, Sirédia ñu naan moom itam ndekete ba muy dem def na fi lii def na fi laa def na fi def na fi laa terew yi jël nañ ba ma ko orange poste moom ña fa jaar ñëpp poste ku nekk xam ne ni poste lekkukaay xaalis la vache à la ña fa nekk euh, bi balde ba mu nekkee ministre tekki fa la dàq ko bañ ko dàq fii ministre bu ñu dàq si ci gouvernement rek ba ma xala ci ci ci ci DG mhm. loolu mooy euh, continuel di di euh, def lal saf ak la la neex del zonge Macky Sall nag ñu lu ñu xaar ci moom ci fi mu toll ni 15 mois yii mooy na lijjante réew mi bii bi balde mii wax dëgg fa yàlla bu ñu Macky xam Macky nag fi ñu tollee malheureusement xam naa ko wax naa ci nii bokk nit ñi daggatee da dagg affaire bi jox ko ko nee na non su ma bii bi sax naroon naa ko dàq waaye su ma ko dàq Aïssatou day kontaan ne man moo tax ma dàq ko kon bii bi tem tem bii bi am sursi mais tôt ou tard bii bi dina génn te bu bii bi génn na sax naka Sénégalais yi génn tam nañu wax nga dëgg donc foofu eh, li ci metti Aïssatou mooy travailleurs yi di di di di di souffrir di xeex seen ak seen yelleef ñu duma leen gaañ leen mais mais xam nga xam nga xam nga euh, xam nga xam nga Malick travailleurs yi naqar gi ñu nekkee mais mënuñu ko kenn ba pare chaque jour nga dégg tamit. bu jëmmalee dóor leen ba gaañ leen ñu dóor la gaañ la. ba pare tamit yow tu de perdre ton ton boulot vite devenir après. Ouais. quest devenir il a personne qui, qui, qui te prend en charge tu même pas d'interlocuteur pendant ce temps-là euh, euh, euh, l'objet du litige. Euh, pour ne pas dire ki euh, euh, ki lépp ma ngay calme calmement ma ngay dox la ko saf def la ko neex. école ubbi na depuis semaine passée te parents yu bëri yi liggéey poste ñoom. nee sax ba inscrire seen doom yi seen doom yi mënuñoo dem jàng. te nag lañ xam nga doxantoom yi muy doxantoo ak taxawaal yi muy taxawaal taxawaal bu démb ba bu dimanche ba. da nga jàpp ni li sincère. Macky président Macky Sall mais mais euh, xam nga man président Macky Sall des euh, m'a fait un peu rire dama koy xaw yërëmaal tuuti parce que moom quand il essaie d'être naturel sax wala xam nga lii naturel xam nga lii lii lii déjà yow yow booy génn nga ni euh, man je suis d'accord idée générale bi l'idée l'idée elle est bonne comme comme un scénario l'idée elle est magnifique je parle euh, le contrôle de Ibou Diouf qui est qui est un, un scénariste. si c'était un film ce serait un navet mais ci se personne n'avait hmm. mais kii kii mais mais mais yow ki la preuve ki amul sa benn benn benn spectateur amul amul benn vue bi ban vue la yow. ah benn vue mooy waa ji taxaw fii ña ko vue ah, ah, merci merci naata naata tey jii tellement inspiré euh, xam nga li neex si lii mooy euh, euh, yow président sa Sall nga ni. bëgg nga euh, seeti askan wi genre def simple tu fais genre tu es modeste tu es simple. tu vas tâter température tu vas faire le pour déjà yow fii nga yow tu vas un dimanche xam ñëpp nit ñaa nga gàmb ñibbi seegunu nga jaar ci tali bi nii ñetti ni deux deux trois personnes xam comme par hasard comme par enchantement euh, ils se trouvaient là sur une rue déserte léegi nga ñëw. yow fu dee mu toll yow sa bopp bañ ko ba yaa ngi woote assise nationale xaw ma genre assise yooyu cherté de la vie nga yor oto ba xam ne xaw ma ñu dégg naa ñaar quatre-vingt-dix millions lay jar xaw ma ñaata ñaata millions lay jar dégg ànd ak ndeysaan euh, euh, atu charme bi euh, à droite ngeen zëlee voilà comme ça tout est beau tout est joli ndeysaan madame di reetaan sourire génn ci seen vie boobu noonu. pour mën a mais mais mais Marcel malheureusement ñu protocole baa ngi derrière bi. ba pare ah, xam nga xam nga li gën a garaaw mooy. Hmm. Euh, moom lii muy def nii dama ne scénario bu. bu man mo c'est pire qu'un navet je pas euh, Ibou aide-moi qu'est-ce qu'il y a de pire de, de pire navet. est-ce que c'est pas la la touche suñu grand Yoro Yoro est-ce que. xam nga nag yoro ndeysaan vraiment bëggatuma ko sa massacre bi naka euh, il a eu l'amabilité ba ma waxee ne ancienne gloire laak na ma jël tout tout par les sentiments moi je fonctionne à na ma tout sentiment euh, euh, en filigrane bëgg ma yàq xew mi dooga ñëw salaamaaleykum ak sax dafa ko rentré de classe ma bëgg a yàq xewam naan ancienne gloire kalang kalang mais quelque chose comme ça doxantu c'est pas mal. non le président taal ci population. j'ai dit que l'idée générale pour un Sénégal elle est magnifique. elle est magnifique idée elle est magnifique. c'est le rendu mais xam nga le problème. rendu bi la c'est le rendu merci Nata regarde. déjà yow scénario bi c'est super contexte baaxul déjà dimanche di ñaa ngi ci Mawlud yow Sénégal yi nga war a gis benn Sénégal yi fa nga jaar baaxul. benn deuxièmement da nga fa jaaree oto bi di jar 40 millions xaw ma 90 millions quelque chose comme ça dëkk boo xam ne yow yow sa bopp yow yaa ngi woote. bu ah, dund bu cher nag président bu doon doxal ci tamit nag bu dem jël euh, benn benn kalandoo bu bëgg ay sa tamit nag. du jël sama oto bu. non non xaaral ma waaw waaw waaw soto ba noonu. Ah, xaaral ma ñëw. xaaral ma kalandoo la ñoom xam nga ni président du dugg kalandoo. Ah, non non naata naata xaaral wala xam nga communication lay def. xam nga communication c'est important. Mm. Euh, euh, Emmanuel Macron ci Macron. on ne pas le citer des muy dem euh, def yi Macky Sall di def dugg dem si benn foule dégg def en bras de chemise do oto yi ñoom xam ne oto kii ñoom seen oto français lañ yor mm. berline bi simple lay yor. ñoom dañuy defar. voilà waaw ah, merci léegi kii Macky Sall mii bu doon bu fekkonte ne rek euh, yoroo euh, et je ne pense pas que bien que yor sa ancienne gloire la mais je pense que kii waajoo ñu naan tig la mooy mooy seen waajoo ñu naan. ñu naan mm-hmm. waajoo tam sant bay espèce boobu yéen dañ sant mbay xaw ma la nga xam bokk fekk nañ si Facebook bi community manager voilà moom community manager man vraiment yu ndaw moo tax yi lay jur nag parce que boo boo bàyyi xale yu ndaw yi morom appelaay yi xam euh, euh, euh, na yu tas yi mu jël ay naan ay xam nga waa ji sant mbay maa un titre nangam mais je reviens sur ça parce que bëgg naa taxaw ci affaire Aminata donc maintenant là ñun li ñu doon parce que c'est c'est c'est formidable cette idée là d'aller rencontrer d'aller rencontrer les populations dem xool travaux yi nga santaane fu mu toll c'est quoi le problème voilà mais xam nga y a y tout un léegi ñu exactement jauger sa cote de popularité aussi voilà mais xam nga xam nga lii euh, moom laa la wax xam nga déjà déjà lii euh, c'est c'est c'est catastrophique en termes d'image regarde naa ko c'est catastrophique en termes parce que regarde non kii Racine Talla la mais regarde sa ce qui est catastrophique en termes d'image et de communication on on dit regarde Macky Sall yi nga xam ne nii Sénégal laaw ma ngi dee naan euh, euh, xoolal talibaa nga rey ñu bëri moom. takku seen takku seen du takkul daal ak sourire fort xam nga Macky Sall même tellement tàmmul sourire même bu suur daal dafa am koy kaate na ko même même buy sourire sax c'est un sourire vraiment tellement forcé il se force le gars il day rey boppam pour sourire et ça c'est son bii mooy éclat de rire am quand même il a fait un gros effort maintenant euh, nga ñëw fii kii tàllal loxo nag xam nga ñu ñu par hasard comme par hasard ils sont pas là beneen bi li gën a incroyable mooy waa ji fekk na ba bëri xalaal troisième mandat la waroon a def et j'espère que cette fois-ci dina ma déglu euh, pas ancien gouvernement yu mu jël taf taf nañ ci wetam ñu naan ko ay conseil en communication te communiqué wuñu dara dina xëy suba dem seet dem ci gëble ba visite inopinée la ñu wax tey ah, ba tey en terme de communication tout le monde sait que Macky Sall a parfaitement le droit xam naa oto bi mooy mooy clando moom Macky Sall lii clando la ci moom ah lii c'est ça c'est un clando. Ah, ci moom président range voilà. range range bi nag. lii nii non non non lii lii dégg ma lii la sport la lii lii. non mais quand même gars yi yi oui boo xam ne on se la ko jëlee. Ah. mais dans tous les cas xam nga ba tey rek soo bëggee jege sa population. da ngay fekk si li ñu bëgg. Macky Sall tey euh, comme de comme comme day tëgg day tëgg scénario mënoon a tëgg scénario bu parfait na dem na bañ a wan oto wala boog mu dugg si benn pick-up wala quelque chose comme ça seen affaire yooyu ay genre genre simple yooyu. wàcc dem dugg mais xam nga ñu am ñu fitu jàkkaarloog askan wi wàcc dem ci gëblëga directement. à la question sécuritaire quand même d'un président. Oui, non, mais mais nous wàcc noonu. regarde euh. Marcel le, le président même quand il est il, il est sous surveillance hein. ça n'empêche pas. Ah pas dañ koo xaañ daal wala xam mais xam nga même loolu. même loolu dafay wane l'aspect nag parce que xamuñu lu ñu soxla actuellement. Mm-hmm. koo xamante Sénégalais yi ñoo soxla ko transparent koo xamante ne ñoom dëgg ku ku ku bàyyi communication politique de à deux balles li ñu soxla mooy Macky Sall osé. dem affronter Sénégalais si fu ñu ne déglu leen xool lu ñuy dundee xool travaux yi maa ngi tàmm bu mu wax. la ko fa fekk fekk na ko fa xale yi da nga fa dégg benn xale boobu bu bu indiscipliné mel ne Cheikh Tidiane Diaw bu ñëw ne ko mais président Macky Sall troisième mandat du fi jàll mu ne ko ah ok booy c'est bon ah fii c'est bon mais tout ça c'est important. d da dafa dégg kenn ku ñoo taxaw benn maire bu ñoo jàkkaar sama sama genre yaay ñoo taxaw jàkkaaroo na ko ñun président service bi soo ne mais ñun lekk ñu naanuñu nangam nangam mais loo gis kenn ko troisième mandat kenn ko mu ne ko loo bëgg mu ne ko fatawu voilà fatawu ngi ak su suñuy forcé ça xam nga c'est c'est pas important mais li ma bëgg a wax naa da te foofu laay jeexale ci lii mooy président Macky Sall na déglu sénégalais yi na wàcc ci terrain bi moom ci boppam beneen bu gën a important loo xam ne tey ji dimanche bi xam nga lan la lan ma gënoon na logique on sort du du du du Maouloud ah. Sénégalais yi majeure partie bi euh, nekk ñu fi wala ñu ngi doon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñibbisi xam nga lan la waroon a def xam nga Macky Sall kan la war a seeti Macky Abdoulaye Wade la war a seeti mooy li ñu doon wax gis nga maître Abdoulaye Wade président Macky Sall laala ne ku toog fii espèce euh, pas yi mu tajale naa ñu naan ni koy conseil en communication gis nga ba mu ko war a seeti du tey xam naa dañ ko naan non euh, boo demee dañ naan dil la am na si benn nangam mu dem ñu ni dil la mu ñàkk dem ñu ni dil la mais xam nga lu important. xoolal kilifa daal sëñ Mountakha jubóole woon mu seeti ah, Macky mu seeti Macky mooy après Macky dans magnifique dans la promotion moom mu waroon a seeti président je l'avais même oublié mais xam nga lu important mais mm. magnifique merci pour ça rappel Malick mm. mais xam nga lu important mooy kilifa gu doy ne mooy li moom ba tey Macky Sall ci ci lu neex Sénégalais la war a dox Sénégalais yi xol Sénégalais boo ubbi Macky ah, Ablaye Wade ngay fekk mu toog ci biir tey kurusam Sénégalais yi ñoo ko bëgg mag mu doy na Ablaye Wade nekk fii Sénégal di kilifa gu toll noonu nekk fii ci Sénégal mu jël jox la te jox la joxuñu bu rafet mu nekk fii comme li nga wax merci pour ce rappel sëñ Mountakha ngeen toog lii rafet Sénégalais yëpp kontaan Ablaye Wade nekk fii te ba mu te ba mu ñëwee toog dérangé woo ko mi ngi toog rokkoom jàpp sagaru ñaamuram mais Macky Sall nii temps bi ñuy perdre ak temps yi gis naa ministre bi di wër gis naa Aliou Sow euh, bëkk dee mu dem seeti El Hadj Ndiaye gis naa kële euh, euh, kii espèce dañu dénk sport di wër di seeti sans papa et cetera mais moom Macky Sall kañ lay taxaw ji visite courtoisie na bàyyi ay dëj di li mu war a def mooy gis nga gis nga bu seetlu wala mag Ablaye xaw ma amnistie la def xaw ma la laal code électoral ba ma xew dootu amatu sens Ablaye Wade la war a seeti ji dem toog ak Ablaye Wade taataan xalaatam waxtaan ak moom defal ko dalal ko Sénégal yi seen xol sedd. leneen du ko conseiller troisième mandat rek. non de chaque fois euh, koy boo ci communication da nga koy waxal li ko amal njariñ li ko amal njariñ mooy euh, message la. mu am kiy joxe ak kiy jël kiy jël moo ñun sénégalais askan wi Macky Sall suñu serviteur la ñoo koy fay weer dafa war a dox suñu lu ñu neex ñun la war a dox ñun lu ñu bëgg mooy dëkk bi apaisé climat bi clean fine nice suñu maam bii fi ne ñi koy wàññeeku looy asi nangama sàngam sunu sunu sunu mag nii ñii ñii fi ne mu tadagal leen defal leen Ablaye Wade la mu bëgg nañu nañu jàppale ci bëgg Ablaye Wade dem seeti ji Ablaye Wade dina bu bu koy seeti ji nag na góorgóorlu nag ba bu ñu fi defal communication à deux balam bii na na na na na rocceeku dem toog calmement. seetaan ko tarbiya ko déglu ko mu wax ak moom loolu dëgg beneen bi nag ci ma bëgg a ñëw ci Mimi Touré mooy man euh, Mimi euh, ñëpp dégg nañu may wax fii ne euh, man jigéen laa te jigéen bi ma doon fii suñu Afrique subsaharienne rawatina senegaal gi mën nañ ko méngal ak handicap loolu kooku c'est c'est c'est la vérité handicap la mooy déjà ñun ba ñu juddoo rek la ñu ne sexe faible nga xam ne mënuñu si dara on est obligé de subir ça dañuy fàtte suñu xel fàtte nañu mën nañu xalaat am nañu xel dañuy xalaat dañuy tëgg comme góor ñi man Euh, affaire parité yooyu ak féminisme ak yooyu man yooyu nekkuma si seen affaire yooyu man damaa jàpp ni jigéen bu am fulla Mimi Touré fullaam ak faydaam amul kenn ku ko mën a naataale ndax fierté la si bépp jigéen mu am am na fi nag ay nombre tànk yoo xam ne mooy jigéen bu njëkk am fii ci réew mi te amu ko parce que Euh, euh, saison physique elle est super belle elle est ceci elle est nangam parce que fii dañu jàpp ne jigéen boo rafet tant que doo am yenn yi. Mhm. tant que meesoo dafa nangam wala nga am euh, naata li la yàlla may. donc bokkoo donc mimi lépp lu ma am dafa ko am pas à la force du biceps mais à la force de sa passion. Mhm. ak xelam. xarañteem xarañteem compétence am fullaam faydaam ak audace am bàyyi la mu amoon lépp ca Nations Unies ñëw Sénégal. voilà mais li gën a important mooy euh, ndax bu dee affaire bàyyi ku fi ku ne bàyyi nga dara pour ñëw mais xam nga lu gën mooy dafa coiffé au poteau mais des bonhommes yoo xam ne euh, euh, coiffé na au poteau yombut. Mm-hmm. moom agsi fi mu agsi fi mu agsi nii nag mën na ñëw ci croisée des des chemins xam nga man damay rus di gërëm di xarab ñu ngi nag ci politique politique lu ne am na fi nangu nañ ko mais dafa am yoo xam ne euh, mooy sànq li may wax ne la perception du message kooku képp kuy homme public da nga ko war a da ci war a bàyyi xel euh, exactement mi ni mi ngi posé ay act yoo xam ne moom man damay bëgg sama yaay la euh, elle sait on a des relations magnifiques dem seetaanuma seen kii bi après laa laa gis ne invité woon nga interview voilà ndax temps yi dama damaa tallu lu bari mais moom sama sama yaay la Euh, dañuy waxtaan euh, de temps en temps tam ñu gisee te euh, ni mu mel noonu laa mel mooy man fu ma dëgg fekk fa la may bàyyi moom ragalul lu bari. lu léegi lan moo tax ñuy si ñuy xel ñaar ci proposition de loi. xam nga tax xam nga xam nga naata loolee problème mooy perception du message xam nga mooy li ma tam ci politique. Mm-hmm. mooy li ma la tam moom gis nga boo boo boo amee yenn ndam yi. da ngay góorlu ba dara bañ ko gàkkal te moom waxul ak Macky Sall foofu la mooy erreur bu muy def nii te wax naa ko fan yee nee naa ko yaa ngi déglu ñoo xam ne waroo leen déglu ndax fii gis nga Sénégal naata da nekk ku mënti doon su ñun nag da ngay ñaan yàlla sa nopp bi ki ci dugal dara mën na ci dugal lu baax lu lay jariñ te nañ la bañ a jay nañ bañ utal ay noon nañ bañ a xiis ay loo xam ne ay ay yàqu-yàqu la ndax moom mi mi wax naa ko ko a pas deux trois jours et je le maintiens ma ne euh, dafa am loo xam ne dafa moom moo fi indi benn xoolaway boobu ñoom ku caa doon. Euh, on accélère ah, on accélère on accélère on accélère la cadence bi ko xool am na yoo xam ne nii en terme lu simple basique mais c'est euh, ça fait tache d'huile léegi xool actuellement acte yi posé yëpp parce que tant moom comprendre ne du du Macky Sall la jàkkaar lool Sénégal ñoo koy seetaan. mu am ay obligation en tant que femme ak fi mu agsi en tant que femme leader am tamit li mu li mu li mu dëgmal mu war a bàyyi émotion demee ak xel parce que xoola temps yi actes yi ñu posé yépp du seen du Macky Sall la koy critiqué de mais askan wi ñoo ñoo ñoo koy ñoo koy critiqué parce que te loolu rek c'est important moo tax xam nga ñoom leneen yàq ñoom ñëpp nag jege président xam nga mais mais ñi jege président Macky Sall seen seen xel wopp la demee voilà mais sénégalais yi lambda ngay gis ñu naan ah tata nag doon tata nag boo boo nekkoon président président assemblée nationale doo wax lii doo wax naan ba pare euh, dafa am yoo xam ne fii laa ko mos a wax ci ci Thierno Alassane Sall ba mu génnee son livre là ma ni man dafa am loo xam heureusement mi mi elle est pas encore dans man ni nit am na loo xam ne bu ñu la ko dénkee nga nekk am yenn poste de responsabilité ak lu mu metti metti metti bu géej gi doon déborder bali di tàkk. dara warta seen dara warta seen da nga war a fatt foofu parce que koo taxaw fii ci micro bi weer ko kenn dootu la wóolooti ci àddina te wóolu dénk ko wóolu c'est important tey jii Mimi Touré Macky Sall li Sénégalais yi jàpp te moo fi ne mooy bu ko Sénégalais yi xamee Macky Sall tax bien que yàgg na ci politique ay AG mais boobu kenn xamu ko. Mm. bu ko Sénégal yi xamee Macky Sall la tax. Macky Sall aussi liggéeyal na Macky Sall mu teg ko ay poste de responsable yoo xam ne nii quoi romb na fa ñu bari ñu teg ko fa. kon tey jii li leer ba leer mooy bu nekkoon présidente assemblée nationale yu ak yu bay du ko posé ça aussi c'est la vérité léegi nag wax naa ko fii keroog je le répète moment bu kii parce moom mi ngi ci mi dugg na léegi ci opposition te opposition am sax amu fa ay soppe amu fa ay followers. mais euh, mais concernant amnistie bi tam apparemment il est constant. moom la non elle est obligée non mais mais Naata elle est obligée mm, moo ko parce que moo woon tout de même. non moom non mënul jiite ba pare mënoo wàcc du ko lekkat ça ça c'est important mais xam nga lan la lu gën a garaaw mooy la proposition de loi là. bi mu bëgg a proposé ay affaire de famille ak nangam. Mm-hmm. moom waxuma sax balaa nga ñëw ci Macky Sall mais fii naata ñun ñii ñëpp. nga xam ne man mi yoru keesu mburu di jaay mais samay arta laa ñu ma koy jaayle ndax dénk koo wóolu may ka la neex looluy dëgg nag te loolu am partout dans le monde looloo fi am. mais bu bëree xel tey. xaaral bu bëree xel tey mais xam nga li am solo mooy. mais xam nga sa kees ku mu yow yaa sa bopp. moom laa jiite moom ko. que ce soit président Macky Sall euh, fi utu wala keneen. je suis d'accord mais xam nga xam nga am solo. Mm. mooy moom mii mii mii elle lépp lu mu mos yore. amul benn mbokkam bu fa ne. ça elle ne peut pas le dire personne ici ne peut le dire Macron ne peut pas le dire Biden ne peut pas personne ne peut le dire. nga xam nga Sénégalais nga citoyen nga. la nga wax. Ah, parce que lépp lépp tuuru mais par contre nag tu ne te lever toi un bon matin nga ni képp koo xam ne nii peut boo xasee ba nekk président de la république mooy yow sa mbokk bi ñu jàng ci école sa mbokk yi. nañ dem euh, euh, am lu c'est-à-dire ñoom nañ te te loolu gën a garaaw déglul bu ñu mënti am voilà compétence bu ñu mënti am bu ñu liggéey bu ñu liggéey ba ba ba est-ce que xam nga gën a garaaw mooy mooy xam nga sénégalais yi euh, comme il fonctionne comme comme comme comme comme il fonctionne ci émotion du ñu déglu xam nga loo gis rek am na son contraire parce que bu ma bu Mimi Touré bu génnee loi ne boo xasee ba nekk président de la république képp ku jege képp ku la jege amatul droit am benn bu amatul moo wartu liggéey ci mim réew léegi xanaa kon mooy kan ñooy kan la leen nourrir xanaa kon mooy mooy président ko sàccal di leen jox ku leen di nourrir un ba pare aussi yow yaa ngi tas réew yaa ngi tas askan est-ce que mi nekk euh, mi nekk président de la République est-ce que mbokk mi la jox nangam est-ce que nga xam ne am nañu dara na nga xam ne ñoom Macky Sall joxu leen ñoo jàng seen jàng boobu ni Macky Sall ki dugal ak Macky Sall école moo leen dugal école ñoom ku ne am ay ay fortune diverse am si léegi est-ce que c'est juste parce que nit aussi man bëgguma te loolu la te loolu laay meree Mimi di ko meree ñoom ca avant elle ca Alassane Sall et moom Mimi elle n'a pas ce droit elle n'a pas le droit de bëgg a def poste député bii affaire de vengeance su réew mi toll ñu soxla ñu xam nañu ñun lu ñu soxla ñun dañoo soxla koo xam ne ni tu tu tu tu joues collectif mais koo xam ni yow sa sa sa la la ñoom parce que tey jii mi mu tuddee loi am mais am na loi gën a important yu waroon dugal yoo xam ne moo gën a dund important lu gën a mën a impacté ci dund Sénégalais ñun lu gën a mën a impacté si dund dund Sénégalais mooy mu fexe ba proposition te man foofu laa ko doon xaar wax naa fii keroog ne na góorgóorlu ba poste mandat am bii mandat député am bii plutôt na góorgóorlu ba bu mu nekk ci moom xeexukaay. bu mu fa def lu ko Sénégalais yi di xeebee parce que lépp lu mu gagné si capital sympathie elle est en train sans s'en rendre compte ba ndaxte ay ay hurluberlu lay déglu. xam nga boo nekkoo ci yii. boo ne gis nga boo nekkoo ci situation yii ay espèce ñooy jox sa nopp. de de la dóorloo. Mm-hmm. te ñoom sénégalais malheureusement façon yi dañu bëgg ku leen jaay. mais Aïssatou il faut il faut quand même qu'il y des actes qui qui posés dans ce sens dëgg la peut-être moom ni mu ko nemmee ko dafa dafa un petit peu excessif euh, mais peut-être war na am ay mesures yoo xamante ne war nañ ko jël pour quand même xeex. népotisme parce que sénégalais. non je d'accord xam nga népotisme Marcel Maron <laughs> euh, euh, népotisme. amul benn àddina benn askan bu ko du ci d'accord amul aussi benn askan bu ko mën a xeex. surtout ay lois yooyu non si non ñun moom ah, ñun moom kenn waxatu ko laisse tomber mais je veux dire que népotisme moo jiitu suñu juddu ñun ñëpp moo jiitu juddoom moom moo fi ne léegi xeex ko ay mesures ay mesures courage ay waxtaan la ñu ko ut loo xamante ne nii euh, euh, ñu encadré ko ba nga xam tamit duñ du bedd ay nit. parce que tamit une loi doit être juste et non injuste. tout ba pare loi bi ku ne ku ne xam na ni lu ko lu nekk ci suuf li ko lal mooy xeex xam nga dafa dafay ñëw ci li ma wax ne Mimi Touré. antécédent wu grave antécédent waaw lu grave ba pare xam nga li ma naqari mooy euh, Mimi euh, tey jii wax naa ko fii keroog. moom moo yàqal premier euh, ministre amado Ba Macky Sall musul yéene musul xalaat sax teg Amadou Ba premier ministre. comme moom mii man waxoon naa ko ni ma ko waxee Amadou Ba ne Macky Sall doon la mos a teg président assemblée boo xoolee actuellement ñuy dox ni euh, Amadou Ba et le premier ministre le plus man dama ko yërëm le plus triste premier ministre parce que ah xam nga hmm. mais yow Macky sa war ci ay affaire am moo Macky Sall bëggante wuñu mun sa cinéma gis cinéma bu garaaw sax entre ñu ko ñoom ñaar ñëpp kenn mënut a jouer xam nga euh, Macky Sall ñàkk na pexe lijjanti na xam nga Macky comme ni ma la moo Amadou Ba euh, euh, duel à euh, duel à fleuret moucheté ñoo ko ay esprit bokk ay tactique ñoom ñaar léegi nag Amadou Ba tamit wax naa la il est extrêmement froid dans la réflexion mais Amadou Ba xam nga gaana ko dafa xaw a ragal kee am fit di nëbb fit bi nag ci benn bonhomie apparente kële ba pare fitam nag mooy dafa yore doole état ñàkk na pexe amatul choix Mimi Touré xam nga benn Mimi Touré rek mu ñëw bëgg a yàq sa xew ëpp na mais nga dem nga boole ci Amadou Ba mu ñëw yor ay milliards am nekk ci suuf dégg nga du ruq parce que Amadou def ci kaw ci suuf lay def du ruq ci suuf léegi ma Macky Sall mënul dékku Sonko fee di cëppi cëpp fee à côté euh, euh, mu nekk ci biir ci biir ci biir APR am nga am fa benn multimilliardaire benn presque état mini état Amadou Ba rek mini état la nga am aussi benn empêcheur de tourner en rond euh, Mimi Touré après nga am à côté ñeneen ñoo xam ne sa xol tàng na ay ñoom Diouf sax xam nga Diouf sax xol bi xol bi seddul mais Diouf kenn si ñoom ñemewul wax ndaxte Eh, eh, eh, Amadou Ba boo gisee ne ma patti nii Amadou Amadou Ba du nekk mu premier ministre boo xam ne Macky Sall dina ànd ak moom ñu kas di reetaan di kas daañu wala di ko premier ministre boo xam ci tur la yem hmm. dirigé wul dara doxalul dara parce que Macky Sall sawaru ci moom bëggu ko ñemewu ko xam na ni kii euh, poste bi la bëgg léegi nag ñàkk na pexe daana ko am na ba gaw ma mu yàgg bu bu amee temps bu amee chance daf leen six mois la fiy def hmm. waaye ci diggante bi lu am solo mooy hmm. li am foofu laay li tax mimi war a euh, euh, reculer li xale yi naan reculer foog ma reculer mi ndax bu gis nga ba reculer wul dina yàq lu rëy xam nga xam voilà xam nga Macky Sall xeex ak Amadou Ba ndax maîtriser na Amadou Ba Mimi euh, xam na ni Mimi li Amadou Ba manqué ñeneen ñi manqué ko Mimi mi ngi ci moom Mimi am na fit Mimi nag li ñee am te amu ko mooy Mimi milliards yi xam naa ay 1 2 bu bëree bëri ñaar ñett ñett ñeent la si war a am milliards te ñeent milliards yooyu du ko du ko joxe si nii nii comme ça. mi mi balaa génne benn 1 franc foog lu xeex lu xees taxaw ñee nag taxaw lu tax ñoom ñuy gérer Macky parce que xam nañ ne Macky mii ku ñuy Mimi Touré moo war a ma Macky Sall parce que Macky Sall mii. Euh, songu ko erreur la gis nga boo koy songu foog nga teel a yeew pour xam ko pour xam fan fan laa jaar ba songu ko. Mm. Amadou Ba mi nga xam ne dafa am lu ko ne Amadou Ba Amadou Ba yow sa premier ministre wax nommé ko amu moom moom ci boppam kontaanul joué na ne cadeau empoisonné la ñoom Diouf Sarr ñee ñu ñu ñu Diouf Sarr ak ñi mu àndal. ñu ba max leen assemblée nationale dara neexu leen si waaye sax ñoo yuuxu. Mm. xam nga naka nga xam ne kañ lañ am audace yuuxu bu Macky Sall dëggalee troisième mandat donc euh, conclusion xam nga mooy lan. mooy. Euh, nii Amadou Ba def na parce que Amadou Ba ay Amadou Ba multimilliardaires yi làqatu ci Macky Sall yëpp ak ñi mu ñi mu jéppoon dugalaate ñoom Aliou Ngouille ñooy ñi nga xam ne si ñu noppi noppi. parce que xam nañ ne Macky Sall moo rek état la. Hmm. déjà mu yor ay ay bagages am ku ko ci sonal Amadou Ba mii boo gisee mu ne patt ragal noppi ndax milliards am yii Macky Sall bu bu bu Amadou Ba jéem a am fitu. Mimi Touré Macky Sall du ci boole wax. xëy suba lay def ñoom ñëpp parce que ñoom si. kenn kenn ñoom du si monsieur propre. monsieur propre amu fi madame propre amu fi Macky Sall lañ a xam ñoom ñu xam nañ ko. Mm. Macky fee lay toog jël télécommande bés kër yi ñu ñëw ñu mu dekkalaat kër yi ñu Amadou Ba gox milliard yi. Mm. dem dem dem fóon mboot yi nekk ci prison. merci une Mimi Touré nag qu'est-ce qu'elle doit faire. Mm. mooy garder sympathie bi ko Sénégalais yi jox. Mm-hmm. mooy muy def te yàlla tax muy def ay loi yoo xam ne nii par par loo taxul mu def ko mu am ay position yoo xam ne du du du fayonte ah. du du naa yàq xewu Macky Sall du naa du naa du euh, naa naa ut bës du naa nangam na def te yaa gis nga dëgg boo ci nekkee Marcel Maron yàlla suñu borom moo lay fekk si mais boo bëggee dugg ci par parloo ah. ay fayonte ay guerre mm. askan wi ñoo lay utuna la doo te yow tu seras tout seul dans ton pour pleurer ñii lay jay doo leen gis la reetaan ñoo la reetaan Sénégal nag lu fi naqar yi mooy euh, naata nga nekk nitu dëgg am ku lay wax dëgg Mimi Touré recul sama yaay ji recul merci Aïssatou recul jërëjëf merci beaucoup Aïssatou euh, am na solo jàngat bi léegi léegi dañuy euh, soobu ci gan gi ñu dalal ko